alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. auusu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. wa sallallaahu alaa sayyidinaa Muhammadin wa alaa aalihi. wa sahbihi wa sallama taslima allahuma salli ala sayyidina wa al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wa la ila siratikal mustaqim wa la ala qadri miqdar al-azim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim يا همة سيق أدرنا بأس المحضر والتعطف بالنصرة تأتي لنا بسفره mbokki daara na Cheikh bi tey dañ bëgga waxtaane lu xew te mooy xew-xew boo xam ne fépp la àgg te àggew fa àggin wu njub àggew fa àggin wu leer àggul fa àggin wuy jëriñ te mooy oote loo xam ne amul ñun nag ci suñ tàggante am na waaye borom pays bi amul lum waajalul loo xam ne war naa dikk ci pays bi te waxu ca tey ji nag dañ jog nag pour leeral leeral goo xamante ni leeral ak yërmaane lañ ci jublu ak leeral ak yeete waaye du leer lu xaste ndax ñi koy def dañ leen yërëm ndax lan ñàkk a xam euh, ñàkk xam nag mën na laa lor mën naa lor keneen kon nag yow ma xam ne lii day lore war ngaa jóg leeral ca ñëpp ba moom wala ñoom ñi nga xam ne ñoo ca nekk ñu yeewu ca génn ca bu dee yàlla may sens Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom nag dugguñ ca yàlla may leen sax buñ ca dugg. Mm-hmm. lii mooy sababu suñu waxtaan yi ñu bëgg waxtaan ci oote yi nga xam ne ñuy ooti naan may xutbaani yaag may xalifa baay ak may insa mm-hmm. tey nag yooyu mu nekk wax joo xamante ni. daañu leen indil preuve yu wér peng yu leen war ne. du noonu. làmb nañ nag suñ bakkan ba làmb ne benn bakkan amul cër ci liñ li wax ak wax yéen billahi wallahi ndax bu fekkente ni nit ñoo xam ne xamuñ li xew li ñoo ñëw ci làmb ci indi loo xamante bokk nag li nga xam ne moo xew ci géew bi waaw ndax euh, bàyyi lu mu waxoon ci yonent yi mhm. yonent yi gannaaw dañ ne Iisaa yonent la woon mm-hmm. yonent yi ak yonent bi mm-hmm. nan lañ taxaw woon mm-hmm. nit ñi nag dañoo juum ci asmaaw yi xam ne tur yi ñëpp bokk ak tur yi ñenn ñenn tur yi ñenn moom mooy asmaaw mutarak ak asmaaw yi xam nga mbir maa ngi daal daye ci barabu délégué Adama def ko xalifa mhm. foofa nag kañ délégué kam àndat mhm. mooy arwa ak asbaala mhm. roohu ak yaram aadama nag moo taxaw de roohu xanaa kon xeesa tuddewuñ ko mooy roohu de xama ne xawaa moo di këree mariam kon foofa ngay njëkk a seetee ne kon nag waaw tur yooyu <laughs> bañ feeñee kon nag ay na masala Isa kamasali Adam yow loolu yàlla wax kon nag loolu leer na alxuraan la ko wax mm-hmm. kon nag yow bul toog digg tey nga defoon ne bu Isa dikk dafay indi turawu Isa wa ak yaayam jamar yama dangaa juum mm-hmm. masta am ah kon nag fu ñu départoon ñu ne Hawa ñu ne Adama ne Hawa soo xamoon nag ne foofu la fi dalee mm-hmm. mooy arwaax ak ruuxu maanaam ruuxu ak yaram fañ delee ruuxu ba moo génne ruuxu ya ah dégg nga ah, ah yaram ba moo yaram ya kon nag benn yaram ak benn ruuxu moo fi mas nekk su ko defee mooy benn xàqu ak benn wujjoot mm-hmm. loolu fa la jëfee bàbbeekoo nag kon fa njëkk a gisee ca gis-gis ya roohu ak yaram kii de aadama kii de xawa ñuy dem boo xamee luy wilaayatu suxraa ma nga déparé foofu loolu mooy wilaaya gu ndaw ga ñu dikk nag ba ñuy tëj xeesaa moo de moo tëj foofu léegi nag ñu ne xeesaa ruulaay ak Mariam kon aadama nu tudd léegi xeesaa Mariam lu mu tudd léegi Hawa lu mu tudd léegi Mariam waaw kon ndax bañ dikkee ñoom ci beneen liggéey ndax tën yu njëkkee lañuy solaat kon boo foofu ngay jàngee ne ah kon ndeke fii buñ dikkee ci kenn ku ne boo dikkee ak sa tenue de travail. kon ñaar ña dikkoon séqab liggéey. bañ leen di jox ay tur ci départ liggéey kii mooy Adam kii mooy Awa. ñu dikk ne Insa moom moo def xatmu def def kat def mu def ah, xatmu <coughs> bi maanaam moo tëjaat ubbi beneen waa moo tax insa dikk kenn gisut baayam ñu gis yaayam aadama nag ba mu dikkee kenn gisut baayam kenn gisut yaayam kon nag léegi bi ñu demee ba commencé gis nag léegi ñu jël ne kii mooy insa ruhulaay kii de mariyam mm-hmm. kii mooy ruuxu bi maanaam kii mooy yaram. waaw. sensé nañ léegi nag foofu daal di ubbeeku. Mhm. mu ne yaa tare solo min baadi ismoo. Ahmad mhm. léegi nag bam mu dikkee Ahmad di butoonu kooka. Mhm. ñu ko Muhammad. Muhammad moom nag fan la génnee. Abdullahi ak Aminatu. ah kon nag ka tuddoon Hawa. bañ dikkee ci beneen pays mu tudd Mariam. bañ dikkee fii tey lu mu tudd. Aminatu Aminatu la tudd. kon du nii la demee. kon nag yow boo dikkee da nga fa nga yaakaar ne boo ci jaaree ci xel ci loolu xel mënu koo xam. dëgg la doxalinu pays bi xel du ko doxal. Mm-hmm. kon nag dama lay wan nag fi nga jaar sa njuumte yi nga xam ne moom nga juumee. Mm-hmm. ndax asmaawu mustarak du daw ci asmaawu fardiyaat yi. Mm-hmm. mukk duñ bokk fu ñuy dawee mm-hmm. ñaata Isa moo am ñaata Adama moo am ñaata Muhammad moo am kon nag bul jaar foofu boobaa doo xam yoon wi mm-hmm. kon nag léegi Abdoulaye moo dikki mm-hmm. ànd ak Aminatu kon Adama mooy kan tey nu tudd Abdoulaye waa xawaa nu tudd léegi tey Aminatu ñu dem léegi bi nga xamante ni wilaay bi bëgg naa judd muy Muhammadu ak Aïsatu mhm. waaw léegi aadama nu mu tudd léegi Muhammad xawaa mhm. nu mu tudd léegi Aïsa mhm. waaw ana kon nag fii noo fi bëgg nag mari Mariam ah juum léegi nag Aïsa mii boo gisee moom muy koo xamante ni ba ñuy daw ci ëtt bale yëpp dañoo sensé tur dikk ne Hawa. Mm-hmm. dikk ne Mariam. Mm-hmm. dikk ne Amina. Mm-hmm. ñett yooyu yëpp dañ faa saa si tur. xaay sota bi ci ëttu euh, wilaya bi. ah. dafa dikk ah na ak nabi wi ni ba muy liggéey. waa jur ko de dafa ànd ak moom. ñu sëy. doom ja fu mu juddoo ji. bañ dikkee nag ca wilaay ba mhm. muy Muhammad Ahmed mhm. kon xaay sa dikk na ànd nag fële mhm. ndax ci wilaayatu wilaayatu kubra bi ay yaayam yëpp ay xaay sa wilaayatu suxraa nag ay yaayam dañoo sensé ay tëni ay yaayam ma nga ñu ne ko Hawa Mariam Amina kii nag ba mu moom nag ci ki nga xamante ni mooy Euh, mooy wilaayatu kubra bi mhm. moom xaayisatu luy xaayisatu mooy dundeekaay bi mhm. moo tax moom nga dégg yonent bi ne ko mhm. yow xaayisa euh, xaasiyatu mooy sangu jigéenu mo xaalamam ba a euh, Mariam mooy sangu jigéenu alamam ba Xadijatu mooy sangu jigéenu alamam yow itam Fatima yaay sangu jigéenu sa alam seetal ñoom ñetti kon yëpp tur yooyu dañoo sensé. waaw ah. waaw asiyatu mariama xadijatu mhm. fatima c'est tur yaa sensé rek waaye kenn fi nekk foofu. dëgg la ah. léegi nag mu ne ko yow ante yow nag mu ne ko yow nag ah, ah, ma yow nag xaay sax mhm. ni yàpp diw mel ci ñam yi. noonu nga mel moo tax mën nga na fu nekk. moo tax mu ànd ak nu mu wóotu. Mhm. jaxaay sa de soxna. mu dikkaat fii ànd ak wilaya. daa mhm. si nekkat soxna mhm. mu di ko ànd ak xilaafa daa mhm. si nekkat fi nekkat fi soxna kon nag kon moo tax nag dafa dikk kon nag fii a wilaayatu bi maanaam wilaayatu kubra moom kii rek ko mën a dikk moo tax mu ànd ak moom loolu kon nag fii nag boo dikkee yow nga dikk foog ne bàyyi bàyyi na fa yaxtu mu insa maa ngi ko wéy si léegi maa ngi koy leeral si léegi ban insa léegi nag dangaa waroon delloo waaw kële tuddoon aadama dikk tuddaat insa mhm. dikk tudd muhammad mhm. dikk tudd ahmad mhm. dikk tudd weneen tur ñu ne ko insa xam moom tur wa dafa dëgg dafa jël insa ba de insa bi yëtu wala jël waaye jël insa ba kon insa ndax judd na wala juddul judd na kay kon nag yaa xamoon ne insa juddoo ndaxte bàyyi bu waxee ne kon nag man maay gide gide Mahadiyu <laughs> man maa koy gide te mi ngi nii moo ko woy mhm. boobu nag mhm. moo fi nekk di dox risaalaam gi bàyyi woy ko ah boo demee ci Taysir Wusool mhm. ci pas sept ba nee na rasulun min al mawla wa aadamu lam yakun wa yabqa rasulan daiman wa muassama kii may wax de rasulu ndaw la minal mawla bàyyi ko ca mawla rasul bii de numéro deux mi ngi bàyyi ko minal mawla bi nga xam ne mooy numéro un bu kii ndax kii moom mooy moo tax de rasul xaq kii de rasul lay ñu ne ko ba boo bañ bañ kan booba ban taala mu ne wa aadamu lam yakun aadama booba amagul kon nag rasul ba mu nekkee foofu di dox ñu foofu ne comment tudd foofa nu mu tudd foofa mm-hmm. waaw ko nekk xam nañ ko nuñ ko mm-hmm. waaw ndax risaala ga jeex na mu ne déedéet wooyu yëpp xaa ma nga des rasoo leen di daw mm-hmm. ba tey fi may waxe yow ma des daa iman faw nag abadan daa iman ma ngay dox risaala kuñ fonk la yow nag ndax tey fi ne rasol ba dafa arrêté yow yaa nekk yaa nekk yaay jël place am wala <laughs> ah Baye Niass tey mu ngi ne mi moom moom mu ne moo continuité la moom mel na fi nekk <laughs> kon kon leer na ne yow uh-huh. ah juum nga dëgg la ndaxte amul changement ba tey de wa yabqa rasulan daiman uh-huh. wa muassama bàyyi ko wax boo demee ci tey sut wusool yombal àgg ba ci ah, dawaa wi nu sitti ba uh-huh. ñu ne waaw ah, kooku mooy kan ñu ne mooy subhaana si asra bi abdihi waaw loolu ngeen def ne isra kan moo def isra ñu ne bàyyi loo xam ni ñun yow kat yaa ñu dindi kumpa di boo demee ci page cent quarante cinq bi mu ne nag bam nekkee ca yërënt ga li saaka sara nooran wa waa fa ay dama adaa jamiil kainaati diyaa diyaaw li saaka lii tax yonent gañ ko yónni sara la def isra nooran muy leer moom ca leeram nga ba mooy dox ca ba mooy dox ca risaala leer la tudd leer googu nag mooy daw nooran woowaa faa dikk nag bu ay dama ada ak gannaaw bam leerale jëmeel kaay nat mboolem nekkatif yëpp dikk na leeral leen moom nga dégg huwa li si yusalla aleykum malaaka lu yuxrijukum mina zulumaati huwa mooma nag booba nag resolab leer booba nag moo doon ñu fekk fañ nekkoon ca ñàkk ga ca lënam ga mu génn ñu ci kon nag ma ngay daw di génne waa azal ci seen azal ga ba ci si ñu génn seen abët gi ma nga des nag ah dañu leeral ah moom ne nag balaa moo jeexal ma ngi koy nag ma ngay la jameel kainaat lu mu ne yokk addiyaaw mboolem kainaat yi yëpp amul sànq lañ ma gën a tuuti wala la ko gën a tuuti ak lu ko gën a yëpp. Mhm. risaala ga daaw na coom def na isra ci yow. Mhm. ba tax na xam nga. boo demee xam googu ñu la koy jàngal barki di mboo njaay. nañ ko yónnee ci garab yi. Mhm. nañ ko yónnee ci lépp ah? waaw <laughs> ah léegi nag mën nañ laa boo fekkee ne xam nga xam nga dëgg xam nga garab nañ ko ci yónnee ak bañ ko yónnee la ko yónneel nga jëral. dëgg la soo dee xam nga laa wax de. kon nag moom de lii la fi nekke moom ma nga cee ma nga nii uh-huh. leeral na kainaat yëpp mu def isra uh-huh. a ah, ñu ne ko yow nag bàyyi nag bi waa ji defee loolu yow uh-huh. noo defee mu ne a ah, wax na ba tey ci paaso deux cent dix-sept ci diwaan bi mu ne xabaani muraadi qabla ilmi wa nasati فمن نوال الكل والكل مانه xabaani may na ma moom nag muraadi sama nameel yëpp xable elmi njëkk ba may am xam-xamu saayir wana sa ak ba may juddu sosu fee fii la ma jox bagage man loolu nag soo déggoon insa luy insa dëgg dëgg dëgg dëgg ah danaa la ko tegsil ci kanam moom nag bañ koo jox ba ko ko xebal ba ko xebal mu dox doxam bi mu ne may na ma nag li nga xamante ni sama may gala ba ma toggee ñu naan ñu naan Ibrahima la wala doomi diw ak diw mm-hmm. la ma jox yëfi mm-hmm. ñu ne ko nag ba pare mu ne fa nii ci man mii lay bàyyi ko mm-hmm. nawaalul ku li may ñëpp ñëpp seen may ya ci man lañ ko teg seen sama loxo ma dee leen ko jox wal kull lépp loo fi gis mhm. maa ni sama may la mhm. waaye yoon da ngaa foqarte may ci bàyyi léegi yore ko xanaa <laughs> ah ah moo ko wax de lépp la fi gis ci paas bi nga xam ne mooy paas deux cent bi uh-huh. may na ma lépp uh-huh. njëkk ñuy dikk fii déedéet fii man nag man nag mm-hmm. may ak ñëpp moo tax naar yi ko xam nag naar yi nga xam ne ñoo xam kii mm-hmm. ñoom duñu xotti dara mu ne ko mu ñoo ñoo ne ko ñu ne ko ah dégg nga ah, ñu ne ñu ne ko mu ne ko bàyyi. Mm-hmm. Eh, yaa man amada jamihil xalqi musu ji la. Mm-hmm. yow mi nga xam ne yaay serviteur bi jox li yàlla bind bañ mm-hmm. amalee lañ amal. wala yura madadu min xëyri amale kenn mun a gis benn toqin te du yow yow la jaaree. fan dégg nga ñun nag. ah min wa im daan naa min saakum daxara ñun naar yi day. may yu bàyyi ko teew gis nañ ne amatul. wa nartaji minkum min fadlikum madada mhm. yow ndax yaa ëppale naar boobu yaa ko ëpp yaa ko ëppale cër wala xam nga lim xam li moom day waxoon ne man la man la nangu naa nangu na yëf bàyyi jox na da dangaa waroon wax ne nag ni bàyyi waxee nii ndax defee nga ko mhm. soo ko waxoon foo taxaw ndaxte moom ne moo ne moo nag man day ah famille na wàllu kulli Mm-hmm. wal kullu lépp lépp lépp lépp lépp maa nihi samay may la moo tax dama laa wax ne boo dikkee ci bàyyi bul ne ko may ma ndax bàyyi mooy maye gi da ngay dem ci kay borom maye ne ko may ma ci bàyyi ah waaye bul may ma nag <laughs> banque bi uh-huh. dangay digg dikkee da nga maam dem ca borom uh, borom compte nga ne may ma ci waaye mu bind la chèque uh-huh. ah kon day moom mii de lii la wax mm-hmm. ah ba tey ah, bam dikkee nag moom mm-hmm. groupe bii mu nekk moom baay fa la groupe yëpp tasaar daje mhm. ña tasaar woon ca alam yële ña tasaar woon ca alam yële yëpp ci moom lañ daje nga ne ma oustaz ndax bàyyi ko wax ma ne waaw yaakaar naa ma ko de mhm. boo demee ci tey Wusool ci jaama ba mhm. ci eh, Daawin City ba ci paas neuf ba nee na waqa saara fii naan muslimoona waxindana aimatu helmin salihona takaruma wa fina rijalun sabiqona wa indana li axtaabi xadmun xabu kantan mu tal sama maa ngi bëgg a leeral nit ñi euh, moo tax masihiyitu ak insawiyitu ñoom ñaar genn ku ne dafa am boo xamante ni kii mooy droite kii mooy gauche boo ne maa xeesaaw kese benn loxo nga boo ne maa xeesu masiw kese benn loxo nga <laughs> ah? ah kon nag la euh, sëtti xam nga Isa moo benn lab benn benn benn waat benn wàll la. Uh-huh. déet baaxut nag. <laughs> nit ak genn wàll du fii. Uh-huh. insaanu kaamil dafay boole ñaar uh-huh. mu fii naa ci ñun ñii tey. al muslimoon musulmaan yëpp. Ah, mooy daay musulmaan du kër kër kër bi. waa kër rasool tey bi yëpp. tey fii lañ mujj tey. ñu ne ak ñan. bàyyi mu ne waxee na naa ay imata elmin njiiti borom xam-xam yëpp tey fi lañ mujj saalihoona ñoo xam ne dañoo deferu takkaruman maanaam xam ne ñoo xam ne borom koo xam ne maqaama saalihoona yi ñi mujj ci deferu saalihu te xam ne saalihu mooy maqaam bi mujj mu ne ñooñ tey fii lañ mujj tey kër gi kon booy seeti kër kër kër wilaaya bi bi nga xam ne mooy xaynu wilaaya foo koy seeti fii na mhm. mu dikk ci kër xilaafa nag mhm. wa fii naa rijaalun saabiquuna góor ñay kursu ci yàlla saabiqoo saabiqoo tey waa kursu bi fi lu nekk ndaxte balaa nga mën a kursu mm-hmm. ngaa dem ca fa ñuy fa kursoo mm-hmm. ak xam neex lef mi fañ jëmmi ah ak podium bi <laughs> waaye yow fii nag xam na bi nekk ak fu koy kursoo nañu ko kursoo uh-huh. kon nag fii ci biit nga xamante ne mooy daayiratu saadaatul malamitiya lañ nekk <laughs> ah ndaxte fële uh-huh. mooy kër alawi yoon ya uh-huh. ñoom musulmoo ne ah. fële ah. mooy kër tijaani yoon ya ah. fii mooy kër saaratul malamitiya soo bëggee xam saaratul malamitiya daa la ko tekkil pour nga xam ndax yow bokk nga wala bokk lo <laughs> dégg nga nag ñun nag góor yi kut yàlla ci nga xam ne mooy ñu wax ten tëral mm-hmm. waa indi naa lay aktaabi xat mun mm-hmm. aktaabi xutbu mm-hmm. ba ba nekkoon xutbu xutbu ca wilaaya ca nubuwa xutba nekkul xutbul aktaabi ci wilaaya xutba nekkul xutbul aktaab ci kilaafa xutbu yëpp am nañ benn xatmu boo xamante ni moo leen xatmu ñoom yëpp ñu ne ko bàyyi kooku nu mu tudd mu ne xapu kantal mu talsam ko mooy kantul mu talsam ak kantul mu talsam mooy lé euh, maga magasin buñ lëmas ba xamuñ fu mu nekk ak nu mu nekkee ak lu nekk ci biiram kooku mooy kantul mu talsam <laughs> ah uh-huh. ihaat noori mu talsam uh-huh. ba ngay jàng ci jaahirul maal jawharatu kamal kooka le kooka nag mooy kooka boo demee doo ko tuddee xeesa doo ko tuddee loo koy <laughs> ah xam man du laa ko tuddee <laughs> ah xanaa xamula ne ba muy départ xamul tur leer rek lañ ko tuddee woon waaw ba mu dikkee fu nu tuddaat ah léegi nag kon nag kan tur mu talsam mu ne tey nag fii la nekk suñ kër gi mhm. waa léegi yow do man su ma doon oote kay damay wax ne man man moom nag kantul mu talsam moom boobu de waaye bàyyi di wax ah, maay moom soo ko waxee nag ñu ne waaw kaay na war kaay na uh-huh. loo loo loo yow kay boo xaaral ko seetal taa yoo waxee ne man la rek nekkatoo ko mm-hmm. ndaxte dañ ko nëbb nga feeñ mm-hmm. bàyyi na nag a bàyyi na da nga uh, wal saayiru mm-hmm. baati siru siru la taayo wa sur yan tëq laay sama yu sur mhm. sur nag fu ñu ko bëgg a weeree mu tux fa moo tax xoote garaaw mhm. taayoo ne man la rek yow daanu nga mhm. ndaxte tey fii du du du béy oote lu ñu na nga dem ostaage lu tax ma ne us ba du wax bàyyi ko ñu ne ñun ñooy ñan ñu ñun ndax da nga ñun ñooy ñan ñu ne ñun de ñun waa kër Baye ñu ànd ak Baye laa wax de waxuma ñu tuddoo Baye ñooy saadaatul malamitiya ñu ne ah oustaz saadatul malamitiya mhm. yaa ko wax wala bàyyi waxuma ko de bàyyi ko wax de mhm. nahnu saadatul malamitiya mhm. ñun saadal mil malamitiya malamitiya mooy koo xamante ni yow na na for na formé jëmm ja taxawee noonu nga formé xooxee taxaw formé jëmm ja nam taxawee noonu nga formé taxaw kon nag jëmm ji keneen ñi cay wax waaye jëmm lu wax su ko defee nahnu saadatul maqamat wa tarku karamat ñun dañu dem maqaama yi bàyyi karaama mhm. waaye yow boo dikkee ne man maa instant kon nag kon na ba di mhm. kon xanaa bokko ci saadaatuma lamité moom duñu duñu wax maqaama duñu wax maa yore maqaamam instant duñu wax ne maa yore maqaam Ibrahima mhm. duñu wax ne maa yore maqaamu Muhammad déedéet seetul maqaama au tërkul karaama yow bu la yàlla defaloon karaama sax da ngay noppi kon lu suy irfati fi irfati yi yow tarbiya nga jàngale katu France dong nga woon nga bàyyi fa ñu ñu yàlla li jaasaal nga bàyyi ba dikk naan nga ot na man nangam ah yow kële lan la woon ab mécanicien eh. nga dikk ñu li jaasaal nga dikk ne man la ah kële dikkoon ne nga maam <laughs> ne nga maam gis ah jiite nga xamante ne muy groupe nga xamante ne muy groupe xale yoo xamante ne dikk naan yaay diw yaay diw yaay diw eh. nga dikk eh. fi am de saa saa satul maq ñoo kullu si irfati fi irfati si suxli fi suxli mm-hmm. ko am métier demal def si métier waaye tey da ngay seetlu tey mécanicien yi tailleur yi ñëpp li jaasaal nañ ñu bàyyi seen métier. bokkatoo ci sartu ma sartu ma la métier. si soxla si soxla am nga soxla. Mhm. demal toppatoo ci ko. Ah? Mhm. wa ah. waaw kon si soxla laa na dee daawa. Mhm. wala masiyata. wala xusus ñetti duñ ko ote. ñun duñ fi nekk de def di aaya campagne politique. laa nadia daawa wala masiyata wala xusoosiyata ñun la yàlla ràññeel xam nga léegi nit ñaa ngi koy dem ba léegi colaayu kër bàyyi boo ko solee ñu ràññi la ma dem ba damaa dem fi may ndikki rek am ko dama xanaa kër kër nga sol xanaa xool li ma xool rek mën a mën a kaw <laughs> mën yéen kër bàyyi ko la gis xam ne leen waxul loolu de solu colaayu kër kër da nga maam tramote ak eh, mbax na yu xawsa ya déedéet. Mm. wala am wala xusuus ñun la yàlla jagle mm. ñun kër saadaatu malamité ñett ñetti kenn du ko fi oote. Mm-hmm. doo def di aaya. Mm-hmm. doo def tamyiis. Mm-hmm. doo def xusuus ya. kullu saaxay bi rijaal képp koo xamante ni def nga lool mbërëg nga mbërëg mooy la jigéen nga yow doo mat la góor bokk la góor yàlla te jigéen du nekk xutbu. jigéen du nekk insa kon nag jigéen du nekk ab yonent kon nag boo waxee loolu kon yow yaa ngi ci maqam ab jigéen. kon nag léegi yow nag boo toogee fi toog ne man maay diw yaay kan léegi. yaa ngi ci jigéen. moo tax jël yi dafa bari turu. lii nag saadatuma la amitié pour nga bokk ci. Mhm. bu la kenn xàmmeeg maas bi. ak foo mënoon toll. dikkal toll ak maas bi yam maas bi rek. Mhm. ah waaye nag bëgg ñu xàmme la loo xam ne yaa mel ni yaa mel naa booy génn ut ay gàngoor boo xam ne ñoo lay entouré. Mhm. fi ne gars yi kenn ku ne xam naa sa say police yoo xamante ni ñoo lay kile ak armée ak garde corps yoo xamante ni boo tut qualité oustaz ñu waxee ci ñu door door leen mbéj waaye nag qualité oustaz gi yi nga xamante ni ñoom uh-huh. tudduñ la taasuñ la te daañ la taas uh-huh. daañ la daas gëlit gëlit uh-huh. ñu duñ la tudduñ la taas de waaye nag daañ la des gëlit ba nga yuux te doo ñeme wax ndax lan dañ la indi li bàyyi li wax li tudduñ la taasuñ la nag yow nag soo ñemee wax soo xam nga léegi soo ne lu bon lii mhm. baaxul nii la nii la mhm. ku la ci xeexa yokk bon la waaw kon nag lee tax ñun bañ dala wax ci lii mhm. bañ tarbiyaagul ak bañ tarbiyaa yëpp moo ci yem ak ba tey jii daañu wax doo dégg ku ñu tontu mukk dangay bind de ñun dañuy bind de ñun dañuy wax ci ah, ci kele yi dañuy wax ci yëpp waaye nag kenn duñu ci dugg ci ñun ndax lan waxuñ la su ma nee nangam baaxut ku ko def baaxut mhm. soo ca tontoo yow yaay ko di ko ko ko bon ka man de foo laa waxee kon ne mi ngi nii de mhm. waaw bàyyi ñes nag na tey kon nag mhm. kooku de mooy kantul mu talsan waa yow ndax xeesa boo ko waxee xeesa mooy kantul mu talsan xeesa administrateur la bu ñu doon won benn affaire bam ca pare la ci pare léegi nag bu dil si aatee bul foon dafay tuddaat même chose <laughs> <laughs> bul juum bul juum <laughs> bul juum ah, nit ñi dañuy juum trop trop trop trop trop mhm. trop dañ fa ne instant ma nga xam ne mooy kay bu dikkaat day dikkee mhm. yow nag nu bu yow instant noo sant mhm. géey nga sant wala jóob ah wala njaay instant njaay instant jóob moom nga tudd ah. ah déet yow sax su nga continuer ndax da waaye nag yow am nga tur am nga sant am tur wu jiitu tur wi Ah? ah boy na Mouhamad Mahmoud Xeesa ah. kon nag Mouhamad Mahmoud Xeesa kon ñaari Mouhamad Mahmoud ak Xeesa ah. yow sax suñu tudd Mouhamad nga dem Maamour yow sax tuddoo tur arab yi faf mhm. kon nag léegi foo ko jëlee foo ko jëlee foo jëlee xemoo ci de nga am sa rakk am sa mag am sa yaay am sa baay Xeesa de mi di kon moo xam ci yooyu dara kon foo jëlee yooyu <laughs> xam nga léegi entre bi nga xamante ni moom fi ne yow li nga wax rek moo lay weddi gis nga boo waxee fen li na wër yëpp moo naan waxoo dëgg waxoo dëgg waxoo dëgg waxoo dëgg maay sa mag maay sa yaay maay sa baay maay sa rakk maay sa nangam may kon nag instant lu mu ci amoon lu ci amoon ci yooyu dara kon nag weddi ko weddi nga weddi sa bopp ah, kon nag euh, ñu waxoon na kat ne monsieur nga ñëw si ah lu ma waxoon boo demee ci sibaawul askan day ci paasu cent cinquante trois bi mhm. xat booba nee na mhm. fa yaatil wa rijaalu rijaaluhu mhm. bi diini imaamil hasimi yatadayanu hunaalika man faydu la sàkkalantara siwa aarifi billahi wa sarxu sarxu mutqinu fa yaxtumu insa la yakunu wilayatan booy dama maadil ruux fal xeer yu fanoo wuy yi gën a mën a daane yi mboolem firikat yi mhm. mooy ñetti wuy yile mhm. ah bàyyi na fa yati dana mas a ñëw si mhm. masihun ab ab masihu waxul almasihu kon ñu ne waaye masihun ab masihu kooku waxu de waxu na insa de masihu mooy ko xam ku xam na kenn xàmmiwu ko dana mas a si ndaxte masaxa ñiy firi efface mi ngi mel na nga bindoon tableau ci bit ci tableau bind ci bare nga jël euh, morceau tooyal ko effacé ko mu jeex tàkk mhm. gisatuñ fi mu ne loolu mooy ma siw mhm. nit mii nag mhm. mooy ma siw dëgg la ndaxte boo gisee xar xam nga ne xar xar xar rek la béy béy rek la nag nag la mbaam mbaam la fas fas la waaye nit mi nag mooy kan aha ñoom ñooñu nag taxaw taxawaay ma siiw ko effacé wu kooka am na waajoo xam ne ma nga effacé wu ca biir ña wu Ah, te bokk te ñoom de <laughs> wama wa ana ila basar mislukum mm. waaye yowa ilaya mm. man nag nit laa comme yéen nag waaye nag dafa am lañu ma yootal tuuti aa <laughs> waa jooju ñu yootal nag mm-hmm. ca biir gaaña mu nekk ca biir gaaña niroog ñoom mm-hmm. bokk ak ñoom mm-hmm. ñu fa ci ñoom bokk te bokk ca mi ngi ñëw si mi ngi ñëw si de waaw kooku ndax boo ko boo ne man rek daanu nga daanu nga ndaxte ko leer ndaxte boo ne yow rek ñu ne waaw an sa yaay mi ngi nii an sa baay mi ngi nii an sa rakk an say jabar an say taalibe kon yàqu nga kon nag kooka moom dafay nekk masihun mm-hmm. fa yaati masihun mm-hmm. ab masihu mm-hmm. bu doon almasihi mu dellu ci waaye masihun nëkkiral la wa rijaalu gaaya yi nga xam ne ñooy rijaalu malamiti bi rijaalu hoo ay gaay maanaam moom mooy mooy nekk rijaalu malamiti yi yëpp Mm-hmm. ndaxte moom moo yore liggéey bi léegi. waaw mooy chef de service léegi. Mm-hmm. ñu ne ko ah waaw léegi nag kooku bu dikkee xam nga dañu fa ne masiw ñu ne mooy dafa amoon eh, injil. Mm-hmm. mu ne bi diine imaam yi xaasimi bu dikkee nag. diine imaam. waaw imaamul xaasimi. waxul nabi xaasimi. waxul rasul imaamul xaasimi. waaw yitte da yéen. <laughs> imaam bu bokk ci biir uh-huh. waaw xaasimi mooy laaj lu tax baatu xaasimi luy baatu xaasimi ci arab. lan la jagle waa ji nga xam ne moo ëpp njëriñ ci ñëpp. waaw ku dikk mu gana la. waaw mooy xaasim ba nekkoon ca Màkka xam nga masin xaasim nekkoon ca Màkka. moo ñu doon wan lan ma xaasim yitu. waaw moom moo di ko li ilaafi Quraysh ni ilaafi mri la tafi sra falyabudu a dee xiif. mu ne lii du fi am ñu tëdd ñemewuñu génn. muy dem Saam di dem Yaman. indi nag lekk geeg yàpp yëpp. Uhuh. ñu nekk xasaman xasaman xubsu damakatu mburu yi uhuh. kon nag ki nga ne moo dikk di yàqale mm-hmm. jox ñëpp mm-hmm. te daa nga dégg ki jox ñëpp ah. ki jox ñàkk yàq ñëpp ah. ko mokk mooy imaamul hasim yi bu dikkee nag xeesaa mm-hmm. ca diina jooju lay jàpp <laughs> ah ñu ne ko ah booba nag lu ñuy xamal nag ne uh-huh. lu ñuy xamal nag ne a an na murum gan xunaale ka foofu xamale eh, mate alfaydu faydu bii uh-huh. alf gisal waxu na faydun alfaydu faydu xanaa xamoon na faydu ma nga départoon li jiitu aadama waaw faydu ah buy ibaadaat lii la buy ci imaan lii la buy ci jëmm lii la kon nag faydu dafa am maanaa dafa am jëmm dafa am ay xaraf dafa am nu nga kii waaye ñu fa ne ndox mu ñuy naan la hmm, baax na nag dana joxe ndox moom ñu naan ku nag <laughs> dégg nga faydu nag balaa mooy pare hmm. foofu la nit ñi nag na waaw Fayda pour pourtant daj addina bi damaa bëgg nañ déglu buy wax loolu xamante ne bu ko boo ko waxee mhm. ñëpp dañuy fenloo mhm. ndax yow bu ko loo xam ne addina bi yëpp ñoom Trump ak ponkal yi bon yëpp mhm. daañu mujj nekk si diine ji benn diine rek am ci kaw suuf ku la ko xam ne nag dana da ko gëm déedéet waa d'accord léegi sax tey bu ñëpp dikkoon ci diina ci ndax daañ bàyyi yëpp dikk ci fa tariqa tijaan ya déedéet waaw ñëpp bu ñu sax ci tariqa tijaan ndax ñoom dañu dikk fay si bàyyi faydu bi déedéet waaw kon nag faydu bi nga xam ne dana mat fan lay matee bàyyi yow mii yaa dikkoon da dox fu daal di daw ci yow daw sa siru mhm. sa siru ba di diw mhm. ba matee diw ga nag mhm. ndax sa siru ba day dikk am ba day màgg ba maana ànd ak kam nga xamante ne mooy nisbaam nga am faydu bu mat foofu faydu ba wàcc ruuxu ruuxu boobu nag fay di ko di ko di di ko suuxat mhm. ba mu màgg ba man a doon la ka xam ne moom la dikkalit mu mën a am naata nga ak moom mhm. ah mu dem mhm. mu wàcc fayda ba dikk ca xel ba xel de màgg de naan ci fayda ba fayda ba ànd ka xam ne moom la mën a ànd ak mu dikk ñoom ñaar ñu ànd ñu dikk ci xol fayda boobu dikk ci xol xam nga woon yaa ngi ci quatrième position ba mu dikkee nag. Mm-hmm. muy màgg foofu ba ànd ak moo mën a ànd ak ko nga xam mooy xol. Mm-hmm. léegi nag ñu ne nag waaw yéen day bagage yi fu ma koy wàccee. ñoom ñetti ñu ne ko ah ñu nag wax dëgg yàlla xanaa nga seet keneen. waxuma la insaan insaan nag foofa nag fa la fay doy pare si nag. mooy nësu. sa nafsu bii <laughs> nafsu bi wa nafsin wa ma sawaha fa alama fu joraaw tax ndax bakkan dafa ñaari yële boole <laughs> taxawa jatti léegi nag li tax muy mbër mhm. dafa boole ñaar ñoo xam ne bandi bu gën a nekk ci bandi yi mooy nafsu ah. ak ki gën a baax ci gàgge mooy ruuxu mhm. fa alama fu jooraa mhm. wa taqwa fu joor mooy nafsu bi taqwa bi mooy moo nekk ruuxu ñaar yi laa ko laa ko roofal ah, léegi nag mu am fit ak fulla mhm. xeex ak ki nga xamante ni mooy kàccoor bi daane ko xunaa de kaamal faydu nag foofu la faydu ma te ciw sëkk-sëkk ñu toll mooy faydu bi nga xam ne moom bii mooy jihaadul akbar mhm. yëpp ay jihaad ko duggee xam nga xeex nga foofu de xeex ba sarixa lam laajoon mhm. xeex ba tarixa lam laajoon xeex ba faydu lam laajoon nga dikki xeex-xeex yu yëpp ba jot sa nguur gi nag ah ci maxaala moom mun koo mala kood yëpp nga ko waabale kooku nag booba nag fu naa likan fi laa sàkkalantra si waa nag mahjoo dafa dugg majsum dugg dafa dugg mhm. ku fay dugg xaarif mhm. wa sar umar qul ak sariha boo xam ne dafa dafa tegu ci sariha ndax sariha moo boo xamante dafa dikk dëppoo ak tariqa ak nahju waaw tariq sariha mhm. ca ba mooy daw ci biti tariqa ba mooy daw ci biir fa dégg nga nahju ba mooy daw ci biir biir mooy saayir ak moo tax martaba saayir ak martaba ci ay maratib yëpp mooy daw fii nag unaalika man fayd la sàkkalantra si waa nu mooy ñam a xamee nag bilaay bu de xaari fin xaar mhm. ñam a xamee ca nga baay boo koy xam doo ko xamee ci bopp na nga koy xamee ca law waaye nga xamee ko ci Ibrahima Ñas mu juddoon fii borom borom eh, kaalagaak borom a borom kii yooyu déet da nga may xamee ca law si waa a yi bilaay ñi ma xamee ca law nag mhm. ñoo fay def nag mhm. wasar umut kon nag saa aarif déglu la aarif yi bilaay wasar umut ñama xamee ci laaw waaw laaw laaw boo bëggoon xamee bàyyi loo ko fay xamee te laaw rek moom laaw nangul kenn nga xam fa kenn kun moom <laughs> ku ma xamoo ci laaw nag uh-huh. doo doo xaarif laaw nga may xamee de o ci waa aarif bi wo wasaro murqinu murqinu <laughs> ah ma ne ñun ñu ngi nekk nii defuñ benn kii de ba baaba <laughs> ah dana dana dana dugg uh-huh. uh-huh. kon nag <clears throat> kooku nag laa wax na kon nag moo fi am a ah, léegi nag fa yaxtu mu insa laa yaqin wilaayatan boo ay dama matro yi fal xëyr yutun gis nga foofu la problème nekk na. waaw mooy xat mu wilaaya. Mhm. bu ko xat moo nag wilaaya jeex. léegi nag xilaafu commencé. Mhm. masiw nag mooy mu dikk xat moom mooy dikk mooy dikk tëj ah, xilaafu bi. waaw léegi nag ñaar ñii mënoo leen a mhm. ndaxte bi mu dikkee ne ñaari kële di tëj fële kii tëj fii. kon nag benn jëmm moo taxaw. waaw fële ñu ne ko xat mi fii ñu ne ko xat mi mm-hmm. moo tax ñu tuddee ko xat mun xat mi boo ko xoolee ci biir ñu tuddee ko xat mun xat mi boo ko xoolee ci biir ndaxte dafa boole droite ak gauche bi mm-hmm. boo ko xoolee fii ci biir mm-hmm. nii la taxawee boo ko ci biti nii la taxawee kon nag xeesaa moom dikkee moom xat mu fii foofu xat mooy moom xat mu wilaay bi yaatara su min bari ismu ahmad kon nag léegi moom jeexal na gannaaw fi di ko di xel wax déclaré na ko kon nag lii moo tax nag kon nag xàmmeexoo nag yow nag nga dikk nag xàmmeexoo ne yow yaa ngi ci kër baay mhm. nga foog ne ci kër wilaay bi nga ne xeesaa mhm. déet xeesaa pare na def na jeexal na mhm. ñi ngi ci monsieur soo dikkoon ne bi ñu xam ne kon xam nga li ngay wot sax ñu ne waaw nag waaw monsieur de moom ah way rijaaw su ko defee nag ñu dikk nag nag kon nag gannaaw yow nag ñu yaay suñu njaatige tey acca nañu rek la suñ mbir mi waaye yow yaaw yow kër ak ga Mm-hmm. kër wi wilaaya ba mm-hmm. nga def xat mu mm-hmm. ne maay insa kenn xilaafi nag kan mooy la fa yati masiw masiw lii la moo tax masiw kenn mënu koo xàmmee fii mënoo fi oote boo fi oote da koy fakastalu kon nag nañ def borom yi kii boobu ñu def nag ñu dem ci lettre bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu